ñu ànd ceeg Alaaji Asan Gey mbiram wàññim njëgu luyaas bi Sénégal muy borom kër yi luye di ñanuy luye ñëpp ku ne yaa ngi denc sab dànk fanaanal ci observateur benn agent immobilier di ca wax ne manees na topp dogal bi de lu ñeel contrat yi daw yi nu signé ba noppi waaye bu yooyee contrat jeexee rek yooyu ñëw ne contrat yu bees dañu cay amal ak yokk waaye ba tey ci observateur benn locataire di kuy luye moom ma nga ci naan borom këram su weer wi dee amul pexe beneen lu dul wàññi ndax nag loi moom doxale rek mu ne observateur ci page septam nag mën ngeen caa gis bu ngeen ko jëndee lépp loo xamante ni mooy ñeel njëg yooyee ku ca ne ci yéen ak la muy fay tableau baa nga ca waxi procureur ji nag keroog waxi procureur gi nag keroog ñeel soxna Aïda Ndiong mbàkki yu fay xëy na wàññi ci libération sëñ fay ne ca coffre-fort numéro 115 bi ñu ne moom meelu soxna Aïda Ndiong la moom mbàkki yu fay moo ko moom ba mu ko xamlee takk der yi nag dana ko wax ne ci contrat lu yaa sab coffre-fort boobee turu soxna Aïda Ndiong moo ne waral yéenekaay bi njort ne ci lu yàggatul dinañu déglu ciy leeral njiital CBAO Abdelkrim Rahne nii ak lu mën a xew nag moom soxna Aida Ndiong nammul dara di ay kàddoom ci direct info ñu ko seeti woon ca kaso ba la ko xamal dara yëngalu ko mu ne ci coow leeg tuuma yi direct info xamal ñu it kàddu yi soxna Aida Mbodj ak soxna Dieng Mbacké ñoom ñu gis ne danoo boole ci yëf yi théâtre gu ëpp teg ca yàq-yàqeet dereb jigéen daw coow jàpp ne ñoom ñaari soxna yi nag lañu rafetluwul mooy góor ak nu mu mën a doon nag procureur wala leneen tilimal dereb jigéen daw coow ne jàpp ñu de soxna ne sëñ Bass procureur sëriñ Bassirou Gueye ku galant la maanaam jonge ñewul soxna Ayda Njong nag laas yéenekaay ne déglu nañu ko démb diirab fukki minute ci càkkuteefu procureur spécial Aliou Ndaw ca brigade des affaires générales bu dig lañu ko doon déglu fukki minute rek nag la déglu bi am ndax laas nee na soxna si daf ne pat lank jox takk der yi leeral yi doon sàkku ci moom ngir gën a xamee nag ak moom soxna si Ayda Njong jàng leen enquête moom la xëyee tey soxna si lañu ko nawee ak lañu koy sikkee nag ndax nit du mat yéenekaay bi ne Ayda Njong ange et démon HLM jàppe ko mère Teresa ndax ak jëfam yu baax soxna Alioune Dramé jiite woon Le Soleil di femme d'affaires bu daawul jóg ci soxlay parti socialiste la ko yóbbu PDS ñu ne Farba Senghor a nga ca Macky Sall mi jiite tey réew mi Chamsidine Aïdara mu teg ca moom soxna si di nitu honneur maanaam ngor waalo waalo gi ci yéenekaay bi seede ne moo def deful waaye li wóor mooy loo ko dénk noonee la la koy delloo dërëm du ca manqué waral yéenekaay bi jeexale laaj ne du mbaadu looloo waral kàngam yëf yi woon yu PDS dénk ko seen am am laaj baa beneen kañ jàmm sax di dellu si Casamance soxna yi plateforme des femmes pour la Casamance ñoom dañu ngi ci wër gi waaye ci yéene kaay bi di Sud Quotidien jàng nañ ca ñu naan négociation yi maanaam waxtaan yi bu nu ca def dara ci secret programme Sénégal émergent di rëdd bi nu fas yéene jaarale réew mi ngir ak yokkute le quotidien xëy ne plan boobee ma ngay làkk chinois ci waxin ndax nag ci lu nu jàng ci le quotidien boo jëlee plan boobee la mu laaj ci koppar ñetti xaaju ne ñaar ya Chine noppi na ca jàppale Sénégal le quotidien fësale nataali président Macky Sall ak naatangoom bu Chine Walfadjri yéene kaay xëy fàttaliku sunu yi daanu woon ci fukki at ak ñett ginnaaw seen ak faatu yéene kaay bi ne ci juróom-ñett fukk ak juróomi milliards njabooti ña ci loru ci boobee accident ñoom jotuñu ci lu may benn million ëma seen modloo jot nañ lu ëpp loolee foofu waral kon ku ne ci ñoom di xiiru ngir bis ba seen combat fanweeri fan ak benn ci weeru janvier wi le populaire ci seenam ndaje mu mujj mi démb nag ne modloo tàngal na ëma seen mi gedd loxob nuyoo ba ñoom ñaari mbër yi nag danoo xiifante promoteur bi di Aziz Ndiaye moo ni waxe ci sunu lamb yéene kaay bi di sunu lamb fësal it kàdduy ñaari mbër yi moom naan ca njumte waru ko su arbitre bi sifflé xam na la muy def Modou teg ca ne combat bu am solo la ci moom te nag du tricheur observateur ak tekkaaral gi ñeel seen ndaje mu mujj mi dem di face to face gi jiitu combat bi njort ne tekkaaral la laatab càll mbeer